réew dafay torlu à des moments historiques moment historique boobu la ñu toll. Les Patriotes TV. tey la àllarba ñetti fan ci weeru janvier 2024 asalaamaaleykum mbokki internet yi yéen ñi ñuy topp saa su ne seen seen bii di Les Patriotes TV dal leen ak jàmm le quotidien Idy en danger la ko journal bi tuddee tey jii. waaye balaa ñoo ñëw ak yéen ci jàkkuñu xibaar boobee di leen fàttaliwaat ba léegi suñu seen bu bees bi nga xamante ni ci sport rek lay yëngu ñu tuddee ko info sport yow bi may seetaan ci seen bi maa ngi lay ñaan nga aboneel ma foofu ngir jëm Ousmane Sonko mi tax nga topp ñu seen bi Les Patriotes TV ñu yàkkle xibaar bi li ko tujjee ne Ousmane Sonko Idrissa Seck mii kat en la nekk ndax nag moom moomee jar na mu del dem jagluwaat bu baax a baax ginnaaw bi nga xamante ni candidature bii nag validé guñ ko ndax ay doublons yoo xamante ni am na ko si wàllum parrainage moom moomee ci di Idrissa Seck nag ci fàttali neewoon na moom mii kat mooy chef de l'opposition waaye chef de l'opposition bii nag mën nañu jamono jii nag ci ay jafe-jafe la nekk ndax nag li nga xamante ni mooy doublon yi mu am ci naa bi nag war naa dem defariwaat ko bu baax a baax gën a jekk laat li nga xamante ni moo di ay cumbukaayam ndax nag bu ñëwaatee ñu mën di daal di walde li nga xamante ni moo di candidature am boobu waaye ndaamal kajoor mii nag am naa yaakaar ne sénégalais yi gëm naa ne léegi dañoo xaw a découragé ci moom ginnaaw bi nga xamante ni jug demoon na foofu noonu sa makki sàll bi ko Macky Sall defee li nga xamante ni moo di directeur sénéral waaye nag bi mu fa jóge ak léegi nag dafa beru si ruqoom ginnaaw conférence de presse bi mu fi demoon si ruqoom daal la beru kenn xamul idi mi ndaamal kajoor fan la nekk ci réew mi.